demee mbokk yi ñoo ko déggandoo bu ko defee ñu ubbeeku ak journalu record boobu ba tey nag uh, waa Barça ñoo ngi xëccoo kii nii di Sadio Mané pour mën koo am ci mercato bi tax na nag ñu daal di tekk alal ju takku mu nekk loo xamante ni Xavi daal dina koy jàngat xool ba xam kii nii di Sadio Mané mën naa remplacer Suarez moom daal li mu gis mooy que ni Sadio Mané adapté wu ci club bu Real dina nekk loo xamante ni jafe na loolu ndax moom dafa dem ba tàmm Liverpool uh, teg ci tamit nag dafa déggoo ak waa Liverpool ci manière de jouer tey ci biir journal record la ñuy desandi ak yéen mu di wax ci football di wax ci làmb tey nag dafa xëy rek daal di def zoom ci juróom-ñetti roi des arènes yi nga xamante ni ñoom ñoo jaax ci biir arène bi ba tax na da koo tàmbalee rek ak Manga 2 mi nga xamante ni moo nekkoon roi des arènes en 1984 moom dong moo nekkoon roi bi nga xamante ni nag waa CNG reconnaître woon nañ ko officiellement ba suñu joonu yàlla tey jii bu ñu jógee foofu ñu daal di ñëw ci ki nga xamante ni moom moo di euh, Toubabou Diokh Toubabou Diokh tamit roi des arènes la yu bari dafa mel ni xamuñu ko woon mi ngi nekkoon roi en 1994 après ñu daal di ñëw ci ki nga xamante ni rek moom moo di Yékini Yékini nekk roi bi kenn dul gam-gam leelu moom tamit ndax toog na ci fauteuil royal bi lu toll ci 15 ans yoo xamante ni benn mbër daanu ko donte bëri na fi ak ñu baree baree bari laataa ñu koo daanu wax nañu lu set ñu ñëw ci Balla Gaye mi nga xamante ni moom moo daan Yékini ginnaaw ba mu defee 15 ans ci trône royal bi Balla Gaye tamit nag kenn gam-gam leelu li nga xamante ni moom mooy trone bi mu doon takk ndax ba mu daanee Yékini rek la ñu xam ni moom dëgg-dëgg mbër la kii nii di Bombardier Bombardier moom nekk na ñaari yoonu roi des arènes nekkoon na ko 2002 ginnaaw ba mu daanee Tyson nekkat na ko tamit euh, en 2014 ginnaaw ba mu daanee ki nga xamante ni moom moo di Balla Gaye te moom Bombardier ki ko fi jële woon moo di ni ci atum 2004 euh, Eumeu Sène mi ngi noonu moo jëloon trône bi ci Bombardier waaye yàggu fi le 28 juillet 2018 la ko jël 28 juillet 2019 kii nii di euh, Modou Xarañ Lo daal di koy jël ci moom jamono ji nag Modou Xarañ loo moom moo nekk roi des arènes amagul combat waaye ki nga xamante ni moo gën a ndaw ci roi des arènes yëpp mi ngi nekk bala Gaye doomu Double Less bi fils de Guédiawaye bu ko defee ñu daal di jàll ak yéen ci journalu populaire mu daal di xëy di fësal ci xëtam gu njëkk kii nii di docteur Thior moom nag mi ngi wax ci état d'urgence bi ak couvre-feu bi nga xamante ni président de la république mi ngi wéyal di ko amal euh, ginnaaw ba mu defee déclaration que ni nañ apprendre à vivre avec le virus moom daal jàpp na ni état d'urgence bi ak couvre-feu bi amatu fi importance ndax amul lenn loo xamante ni apporté na ko nañ ko teegi nit ñi reprendre seen vie normalement teg ci tamit nag nee na bu bari bi nga xamante ni askan bi ñu ngi koy tiit ak njàkkare bi ñu am lépp ministre de la santé la ak manière bi nga xamante ni moom lay communiquer li nga xamante ni moo di résultat yi ak euh, li xew ci hôpitaux yi bu dul loolu mën nañoo bàyyi nit ñi doxal seen ay activité normalement euh, te ñu lever couvre-feu bi ba tey ci wàllum santé la ñuy desandeeg yéen ci journalu populaire kii nii di docteur Cheikh Soxna nekk directeur de chercheurs ci IRD moom nag nee na Sénégal jamono ji lu toll ci ñeenti virus ñoo fi circulé ñeenti virus yoo xamante ne yëpp dafa méngoo ko coronavirus waaye yenn yi ci gën a fës mu nekk ab grippe boo xamante ni moom moo gën a sonal nit ñi maanaam jàngoroy coronavirus bi ñëpp yaakaar ne moo nekk ci Europe di fa faagaagal nit ñi nekkul Sénégal actuellement bu baax a baax waaye lu toll ci ñeenti virus yu différent ci jamono ji ñu bàyyi bàyyi ci xel bu baax a baax ba tey ci biir journal populaire comme ni ngeen ko gisee rek fësal na vingt sixième personne bi nga xamante ni moo ñàkkee bakkanam ci jàngoroy coronavirus mu nekk ab soxna bu tolloon ci 71 ans dëkkoon fële na ci quartier bu jàmm gën ñàkk bakkanam ci samedi bi moom nag ginnaaw ba mu ñàkkee bakkanam lañ ko defal test mu daal di positif koy jaale ay mbokkam di ko ñaanal yàlla fu mu jëm gënal ko fu mu jóge te naqar ak tiis bi nga xamante ba ni mu gën a gaawee ba tax na nekk lu toll ci 2480 yoo xamante amee nañu jàngoro yu coronavirus bi fii nii ci Sénégal waaye lu ci toll 1705 yëpp ngi nekk fii nii ci capitale bi ci Dakar ba tax na lu toll ci cas am nañ ko ci 48 heures 83 guéri di ko sant yàlla rek di ñaan yàlla mu law te wéy te jàngoro bi daal di fiy jóge ci na mu gën a gaawee waaye fële na la ci Linguère nga xamante ni moo nekk vingt-sixième département bi amee jàngoro yu coronavirus bi benn étudiant bu jóge woon ci Kër Matar Kër Massar moo ko indi ca Diass daal di leen di infecté ba tax na nag jamono ji ñoom tamit dugg nañu ci wàllum cas communautaire yi ak kaa yi nga xamante ni moom mooy wéyal di am ci mim réew bu ko defee mbokk yi dañuy daal di jàll ak yéen ci journalu L'Observateur mu daal di xëy di fësal ci xëtam gu njëkk coow bi nga xamante ni moo xew fële na la ci Touba doxoon ci diggante Baara Touré ak ñaari doomam yi nga xamante ni faatoon na seen bakkan kenn ki tolloon ci deux kenn ki tolloon ci quatre ans ci atum 2019 le 27 septembre moom nag Baara Touré ginnaaw ba yoonoo saytoo ba teg ko loxo jamono ji nag jur bu jigéen ci kenn ñaari xale yooyu noonu commencé naa am ay traumatisme maanaam daal commencé naa tàqalikook sagom ndax mënul concevoir ba tey que ni borom këram bi nga xamante ni moom la doon tëddandool di yeewoondool ginnaaw ba ñu fàttee doomam ji kooku moom moo nekk ki fàtt bakkanu doomam bu góor bi teg ci tamit nag arrestation wu jëkkëram ji nekk na lu ko gën a euh, suuxal ci traumatisme am boobu noonu maanaam daal li nga xamante ni moom moo xew ci biir këram nekk na lu yóbbu xelam ba jamono ji daal kenn xàmmeetul ci ban tànk lay te ban tànk lay doxee ba tey ci biir journalu l'Observateur la ñuy daal di desandi ak yéen ci kawteef bi nga xamante ni moom moo xew fële na la ci Thiès ab benn soxnaab policier nga xamante ni da dund ak jëm ci biir kër gi coow guddi coow bëccëg moom nag moo sàcc doomu bu jëm bu tolloon ci cinq yóbbu ko kër bu yàqu moom ak beneen waay ju boo xamante ni moo nekkoon complice am fàtt bakk bakkanu xale bi waaye heureusement ba yàlla tuddagul woon ni xale bi foofu la war a demee ndax ginnaaw ba mu yuuxu rek la ko dëkkandoo yi daal di gis gaawantu sauvé ko laataa ñuy ñëw ko mbay alerté ñi nga xamante ni ñoo fa dëkk rek moom na si daal di nay daw ndax benn cousin wu jëkkëram moo ko woo téléphone ñu ko gis naa la nga jël xale bi teg ko ci jakarta di dem ak moom donc xale bi bu réeree bañ koy seet jour laylatul xadr yow la commencé woon na di ko rey mais yuuxu xale bi moom moo ko sauvé ba ñu ñi daal di koy jàppale noonu la demee kaawteef boo xamante ni nag ñaari wujj la ba tey dañ koy wëyandeel lekk ci journalu l'observateur waaye xeexoo ku dëkkandoo ak xuloo boo xamante ni mujj naa indi naqar ak tiis mu doxoon ci diggante matu Jàllo bi nga xamante ni naka dañ ko tuuroonu sumbi am na une semaine ginnaaw ba muy xuloo ko benn dëkkandoom rek ñoom ñaar saa su nekk njëkkoon ñoo jamante paaka ba ñu yóbbu leen hôpital faj leen ginnaaw loolu ñu daal di leen di woo waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teraanga pour ñu sekk jàmm ndax àdduna amul solo waaye dafa mel ni nag ñoom ñaar seen xol yi moo jubóowul woon ba tax ñu wëyal seen coow li suba ngoon guddeeg bëccëg ba kii nii di Xadimatu Jàllo daal di tekk ab bool bu mu doon tàngal ab ndox dugal ci ay euh, pomme de terre moom nag ginnaaw ba coow li jollee rek la daal di jël loolu daal di koy sotti Mariam Sall Mariam Sall moom tamit mi nga xamante ni mi ngi doon togg sombi ci jamono yooyu daal di fexe ba jël sombi bi rek daal di koy sotti Xadimatu Jàllo ci la ay blessure am gën a garaaw nag ñu daal di koy yóbbu hôpital waaye dafa mel ni mënagul woon wér ci saa si ñu téye ko quelques jours après ñu bàyyi ko mu dem këram di ñëw rendez-vous nànk-nànk waaye teguñu ci lu toll ci une semaine moom Xadimatu Jàllo daal di ñàkk bakkanam ba tax na nag laataa yoon di ñëw di teg loxo kii nii di Mariam Sall mu daal di daw waaye police daal di gëtëmal ki nga xamante ni moom moo di rakkam bu góor bi rek pour mu daal di leen di wax kii nii di Mariam Sall fan la nekk ñu mujj koo gis ba teg ko loxo di ñaanal yàlla ki dem fa mu jëm gënal ko fa mu jóge di ko ñaanal ay mbokkam tey waxaat askan bi rek na jarul dara fitna na lay dugal ci musiba pare rek daal di lay indi waat ci réccu donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te xam ne àdduna dara nañ sekk jàmm ñëpp waaye ba tey bu ñuy wax ci wàllum fitna dañ ciy desandi ak yéen ci journalu l'observateur ci kawteef bi nga xamante ni moom moo xew fële na la ca Kunnuñ ca côté Rufisque moom nag ab soxna bu ñu woowee Suwaadu Njaay moom moo fàtt bakkanu gorom bi ñuy woowee Xadi Juuf bu ñu ko jëlee ci enfance am maître bi dafa yàggoon a bëgg Suwaadu Njaay ndax depuis ba muy nekk xale ba tey la doon wax naan kii dama koy dental sama doom bu góor bi Abdoulaye Ba Abdoulaye Ba nekk nit boo xamante ni nag amul woon sens torop ci jigéen ndax mosoon naa am ay soxna waaye ay mariage da munul woon yàgg ba tax na rek dafa pertoon confiance ci bépp jigéen jamono yooyu nag tax na mu daal di tabax ab kër fii nii ci Kundun daal di jëlee yaayam ca Dugar indi ko fii nii yaayam daal di jëli waale tamit ki nga xamante ni moom moo di Suwaadu Njaay indi waale ko ci wetam di ko yar di ko tette ba mu màgg dugal ko école muy jàng ba ni ko doomam bu góor bi daal di jëlee soxna lépp mu nekk loo xamante ni nag Xadi Juuf moom moo ci taxaw ndax bëgg bi nga xamante ni da koo bëggoon Suwaadu Njaay waaye ginnaaw ba ñu sëyee ba am benn doom rek la Suwaadu Njaay commencé changer complètement daal di indi ci kër gi ak jarbaatu jëkkëram yi nga xamante ne ñoo ngi woon ci kër gi mu daal di def lu tuuba daal di leen fii jële daan jékki-jékki tamit du songu xeex ki nga xamante ni moom moo di Xadi Juuf daka daan songu xeex ba ci biir néegam dëkkandoo yi ñëw di ko atte benn jour sax dafa tëj fenêtre yi tëj porte yi di ko dóor ci biir néegam ba ab xale bu toll ci 4 moom moo dem yuuxu rekk woote ji wala dëkkandoo yu ñëw mu daal di leen di menacer ab benn cour daan leen bu kenn jege si dëkkandoo yi tamit woowoon nañu ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Ba ni ko mu daal di jëlee way juróom bu jigéen bi ci kër gi ndax bis bu euh, Souadou Ndiaye jëlee bakkanam dina ko rëccu loolu loolu waraloon na sax moom ci boppam Khady Diouf Euh, daal di jóge ci kër gi delluwaat ci village waaye doomam bu góor bi daal di ko fay indiwaat ni ko yaay du ma tabax kër ba pare te doo fi mën a nekk yàgg na tamit di fase ki nga xamante ni moom moo di Souadou Ndiaye mu lànk bañ a génn kër gi ba bés bi nga xamante ni rek ci la defee ñaawteef bi moom moo Souadou Ndiaye daal di faagaagal goro bi ba pare génn yor ab saako di dem yoonam ba muy génn sax maire bi nga xamante ni moo nekk maire ami wu Khady Diouf nee na ma ngi ko doon tooñ waaye ci saa si rek ba ñu yëgee ni maire bi ñàkk na bakkanam liñ ko soupçonné ak attitude bi nga xamante ni ci la génnee woon këram ci saa si la ndawu quartier yi daal di mobiliser wu rek di ko wër mënuñoo tege fexe ba teg ko bët waaye ay bay Faal yoo xamante ni rek ñoo jékki-jékki gis ko ci lañ ko ni yow ñoo ngi lay sedd daal di koy ngiitam yóbbu ko biir euh, këram ba ñu demee ci la ñu tombeek sapeur pompier ñëw di jël si ki nga xamante ni moom moo di euh, soxna Xadi Diouf mi ñàkkee bakkanam waaye tamit euh, nag moom ci la ko police taxawee doon ko xaaraat laale li waral nag mu def ñaawteef bu ni mel kenn xamu ko waaye li wér te wóor mooy témoignage yi nga xamante ni population ba yeewoo foofu joxe nañ ko mooy kii nii di Souadou Ndiaye dafa nekk nit boo xamante ni meram ma dafay jégg dayo saay bu meree rek ba ñëw ci maire bi dina ko dóor dóori metti wala saay bu jotee ak borom këram day dóoroo kii nii di yaaya mu dóori metti bu borom këram génnee daal di dem liggéeyi ba tax na nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax dëgg la soxna dañ koy téye waaye tamit soxna boo xamante ni joxul cër sa waajur jekkoon na nga daal di ci jël mesure na mu gën a gaaw yi di ko ñaanal yàlla rek fa mu gënal ko fa mu mu jóge waaye du ñu yem ci tàgge bi foofu kii nii di Ndeye Seck siñaatu euh, te mu bàyyee te mu dëkkoon fële na la ci Thiès moom nag génn na àdduna ci samedi bi ginnaaw bu mu tëddee ci feebar boo xamante ni yàggoon na looloo euh, te metti ci fàttali moom Ndeye Seck Signature dem na màkk lu ëpp cinq fois di ko ñaanal yàlla rek soppeem ba Seydina Mouhamed daal di koy teeru fa mu jëm alayhi salaatu wasalaam tey jaalee ay mbokkam ak képp koo xamante ni rek soppeem nga bu ko defee mbokk seen xibaaru jaajëfal di leen jox dig daje ba suba incha allah te naan leen mbokk yi yéen doog jàmm